toog muy dox ci ñaar damay damay damay damay faral di wax ne daa am ñetti catégorie yu ma gis Touba ñetti catégorie yu ma gis Touba yoo xam ne buñ ko topp duñu am développement. JPS Grand Dakar TV. la chaîne des patriotes ñuy tuddoo ay sëriñ di gone yu ndaw am doole nanguñu am métier nanguñu àggal seen jàng ba noppi bëgg a toog muy dox nañ ma meree waaye loolu mooy am ay sëriñ su ndaw kan kam kam miya bu mag bii toog. tuddoo sëriñ bañ a liggéey ak kambiya muy kante bu mag bii toog Akan géwal bañ a liggéey communicateur ak kante bu mag bii toog tuddoo ay jàngkat bañ a liggéey jàng kambiya bu mag bii toogaat tuddoo conférencier wala oustaz ñii boo leen boolee ay milliers de personnes lañ dañuy lor askan bi ndax kenn nangu ci am métier te ñeent ñi wax nag ñëppay kaalaw ñëppay kaalaw sëriñ su ndaw si géwal yi jàngkat yi ustaas yi ñëppay gàllu léegi loolu day day lor dëkk bi nga nekk ndax ñeenti junni ñeenti junni nit bu ñu waroon a sàkku ji wërsëg war a dox ñeenti junni nit ñoo ñu toog wërsëgu dëkk bi day manqué seen xel yi baax yi ñu am waron koo tax taxawal ay mbir day daal di baare du dem te te nag te nag ñeent ñi wax boo leen seetloo ñëpp am bopp ñëpp am éloquence seetlu li ma la wax rek ñëpp am bopp am éloquence yàlla nañu yàlla defal tawfeex ñun ñooñu ñëpp ñu ñu ñu mën a tegu ci tegu ci tegu ci li nga xam ne mooy doxal bi kon nañ dem liggéey yi nangoo am métier da ca nab nab yi la ca des na nga bàyyee ko yàlla ndax kat wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja boo defee li nga war a def mel na nga war a mel def li ñuy wax at tawakkul waaw te bañ def li ñuy wax at tawaakulu